asalaamaaleykum ami internet yu vingt 24 actu ñu safoo xibaaru 24 actu comme ni ñu koy defee rek euh, saa su nekk bàkk ba jib na ñu nuyu leen comme leen leen daan nuyoo ci feebar bii di coronavirus ci la ñuy daal di wax ginnaaw bi nga xamante ne nii ak coppeeku am na ci li nga xamante ni moo di état d'urgence ak couvre-feu ci wàññi gi nga xamante ni wàññi nañ ko jamono ji nag jur na coolu rëy ci Sénégal ndaxte askan wi mujjootu ñoo li nga xamante ni moo di feebar bi ñenn ci ñoom sax jàppuñ ne sax ba léegi feebar bi am na ci miim réew naam na mi ngi rey lu bari cas yi gën di yokku waaye jamono ji taxul askan bi ba tey ñenn ñi gëmuñu ne feebar bi am na ci mim réew ba tax li nga xamante ni moo di takkum masque mi ñu leen santoo ñu di ko def jamono ji am na ci bëri ñoo xamante ni nangootuñu koo def buñ sukkandikoo rek ci laas directeur bu sécurité publique di commissaire Abdoul Wahab Sall daal dina yónnee benn note ci commissaire centro urbain et ak yi nga xamante ne ni moo di poste de police lépp rek ngeen bëgg ñu seen i nit ci terrain bi ñuy sanctionné ñi nga xamante ni nangootuñoo takk masque fi ci Sénégal kon jamono ji rek mën nañoo jàpp ne képp koo xamante ni gis nañ la takkoo lii di masque dinañ la sanctionné ñi nga xamante ni ñooy contrôler mbir moomu nag ñi nga ko jëmee rek ci marché yi ak lieu de transport yi ginnaaw ba nga xamante ne nii dëkk ak dëkk yi di dem mooy transport interurbain yi tàmbali waat na ba loola tax rek ñu gën a yokk li nga xamante ni nii moo di wàllum saytu googu ci takku masque mi commencé nañ ko nag ndiki démb danañ ko continuer di ko wéyal ba àllarba kon nag ñuy wax rek askan bi ñu gën a yokk li nga xamante ni moo di takku masque mi ndax mbas mi mën a gaaw génn ci mim réew ba léegi rek dañuy daal di dese ni ci coronavirus bi ndax ginnaaw ay ñombe yoo xamante ni jur na ko yu bëree bëri gis nañ ne l'association des griots du Sénégal daal nañu amaloon ab ñaxtu rek ngir li nga xamante ni moo di Covid bi ginnaaw bi nga xamante ni dafay bañ lépp loo xamante ni rassemblement la ba tax ñoom ñu doon génn di dox seen doxum ñaxtu ndax jamono ji xew amatul dara tëggatul mu mel ne jur na ñoom ci ñoom ak ñoom be ndax jamono ji rek seen liggéey dafa daal di taxaw ba tax rek ñuy ñaan état mu mën leen a jàppale ci mbas mi nga xamante ne nii lëmbe na àddina ñëw na te xamaguñ kañ lay dellu ba tax rek ñoom ñuy ñaan ndimbal ngir état daal leen di bàyyi xel ci noonu rek la ñu génnee benn single daal di koy tuddee ci lañ bokk ñuy ñax rek kon nag nee ñoom dogal yi nga xamante xamante ni état mi ngi koy jël ngir di wàññi lépp loo xamante ni jëm na ci mbas mi ñoom it bu mu leen fàtte ñoom association des griots boobu leen ndax ci lañ bokk xale yooyu nga xamante ne ni ñoo defoon ñombe loolu ñu leen di wax xale mineurs yi ni jamono jële ñu weesu indi woon nañu coow lu rëy ci réseaux sociaux yi jamono ji nag àttekat bu tribunal des flagrants délits bu ndakaaru daal dinay génne verdict ba jamono ji nag kon tombe na ku nekk jot na penam liñ ci mën a jàpp rek moo di xale ya ca bokkoon kon dande nañ ki Diallo lu toll ci benn weeru kaso daal cay toftal li nga xamante ni moo di amende un million kenn kat di Amadou Matar moom itamit daal nañ koy tëcc un mois ferme daal di ko cay doole li nga xamante ne ni moo di amende bu un million de francs CFA. ki nga xamante ne ni nag moom mooy réception nist bu appartement marist boobu le di Ousseynou Konté Johnny Hervé Gomes alias Thierno nekk tamit réceptionniste bu site kër góor gi ñoom ñaan ñëpp daan nañ leen tëj lu toll si ku nekk benn weeru kaso daan lañ ciy tegal ay amende yu cinquante mille francs ñeneen ñi nga xamante ne nii nag jotaguñu seen peine mën nañu koo xaarandi rek vendredi prochain bi ñu jëtmal ñu xam rek ba xam xale yooyu lee nan la ñuy mujjee ak ñombe li nga xamante ne nii amoon nañ ko ndiki fan yi ñu génn mënuñoo wax xeexum jàngoroy coronavirus bi da naam ne kër docteur daf ñoo digal ñuy xamante ni nii moo di loxo yi jamono ji askan way yeewoo ca HLM ñàkkum ndox mu métti moo leen daal di dal ndiki àjjuma nee nañu bi manifestation di door état di wàññi li nga xamante ne nii moo di euh, couvre-feu beeg état d'urgence bi ndax cas communautaire yi ñoom nag dañoo bëgg amum ndox ndax fi mu nekk ni gisuñu benn yoon ay doxum ñaxtu mu jëm ci wàllum ndox moomule ba léegi sax ña ngay yuuxu wàllu di ñaan état mu dimbali leen rek ba ndox moomu mën a ñëw te yu bëri ci quartier yu ndakaaru sax amuñu ndox waaye waa HLM daal ñoo xam le yooyu le kàddu ña ngay ñaxtu ndax nee nañ ah, seet amunta ànd akum ñàkkum ndox ñu wax ci leneen ci ki nga xamante ne ni moo di promoteur boobule di Luc Nicolaï ndaxte da doon ñaan rek ñu yóbbu ko mbuur ca mu ndax mu gën a jege ay mbokkam ginaaw bi nga xamante ne ni ndar lañ ko tëjoon nag buñ sukkandikoo rek ci ëttu yëglekaay boobule di sunu làmb jamono ji nag ki nga xamante ni moo di Luc Nicolaï lam doon ñaan may nañ ko ko ndax fi mu nekk nii rek yóbbu nañ ko fële ca Thiès fa lay daal di yeggale li nga xamante ne ni moo di penam ci fàttali rek tëjoon nañ ko lu toll si juróomi at yi jamono ji nag moom Luc Nicolaï tëdd na ñaari at yi rek mu dese ñett ki nga xamante ne nii moo di avocat bi koy layal nee na dina def kéem kàttanam ba nga xamante ne dina mën a mucc ñu mën kaa may liberté totale ndaxte ki nga xamante ne ni moo di Luc Nicolaï nag ci li nga xamante ni toppoon nañ ko ko moo di jaayum dorog fële ca Lamantin Beach dekk ab hôtel fële ca Ndakaarum fa lañ ko daal di jàppe woon rek moom Luc Nicolaï jamono ji nag ay mbokkam mën nañ koo seeti Thiès ndax jëlee nañ ko Saint-Louis yóbbu nañ ko Thiès ki nga xamante ne ni mi ngi ñaan te nanguñ ko may moo di Diop Iseg Diop Iseg buñ fàttali ko rek mooy ki nga xamante ne nii moo fi amaloon doom ak ki nga xamante ni moo di jay naa Dieyna Baldé nekkoon candidate fële ca seen Petit Gallé fi mu nekk nii nag da doon ñaan liberté provisoire waaye juge bi defal bañ rek nangu ko ko may ba jamono ji rek moom ma nga fa nga xamante ni nii mooy fañ ko jenc ba léegi nii moom ki nga xamante ni moo di du job nekk directeur bu group ISEC. ñu daal di koy jeexalee ki nga xamante ni nii moo di oustaz Tayib Socé ndax gis nañ ne ay jamono yu yàggul rek ci émission boobu la ñuy amal ci weeru koor gi di quartier général ki nga xamante ni moo di Ahmed Khalifa Niass ñu daal di ko fay invité woon fële ca TFM daal di ne génne woon ay kaddu daal koy jëmale ci ki nga xamante ni nii moo di oustaz Tayib Socé oustaz Tayib Socé nag nee na lépp loo xamante ni moom mën nañ ko ko wax dala koy daal di jéggal waaye du nangu benn yoon ñu tudd ki nga xamante ni nii moo di ay waajuram ba ci noonu rek ci la daal di yómbee ab lettre de démission jëmee ko ci TFM googu ndiki démb ci altine ji ngir wax rek ndax gis na ni bi Ahmed Khalifa Niass di wax moom mi la mbir gisul kenn koo xamante ni ñi arrêté na ko jëm ci boobule euh, kàddu yu ñaaw yoo xamante ni doon na ko jëmale si moom ba jamono ji rek mën nañoo jàpp ne ki nga xamante ni moo di Tayib Socé mel na ko ci Ahmed Khalifa ba tax rek mu daal di rompre lépp loo xamante ni contrat la amoon ko foofulee ca ëttu taskatu xibaar boobule di TFM lii rek moo fi ruusandi woon ci ay xibaar ami internet di dig daje ba ëllëg ëllëg ak jàmm